dooreel wala yokkal cafka Gabou Adja 100% naturel 100% épice di leen di gunge ci seen bépp xeetu togg. Adja safal bi gën. asalaamaaleykum mbokk ceeg xarit yi dellusiwaat ngeen ci li nga xamante ni moom mooy ndoguli ak patisen ndoguli ak patisen tous les jours lañ leen koy may sur la TFM di leen indil ay recettes yu amul fenn di ci ànd ak suñu chef bu ñaawal bi muy Abdou léegi-léegi nag ñu daal di ñëw saaloog moom daal di xool lan la ñu mën a utiliser ci gaamu Adja Abdou na maa ngi fi ci loo nekk sant yàlla alhamdulilah yaa ngi ci jàmm ça a rëgalal lu neex tey nag damaa bëgg nga commencé ci ingrédients yi boo mhm. nuyoo ba pare mhm. may wax ci ingrédients yi ak naka nga ko bëgg a mariner ba mu sax exactement bon tey euh, côte de bœuf à la crème euh, coco lañ lañ donc euh, da ngay am persil mhm. am oignon waaw am ail et puis am sa benn tablettu aja ok tey tablette bi ngay utiliser waaw moom laay utiliser tey d'accord dina ma neex ok donc ñu pour ñu démarrer rek ah incha allah safal bi gën doom bi door jigéen ko jëjële jigéen dañu koy teral kenn warul ko door bi door tey nag bii lañ taamu ci suñu gàmmu Adja muy Adja épice nga xamante ni dafa mëne ci xonk mëne ci lu doore lépp loo bëgg rek danga koy daal di jël nga daal ko ciy suy guub bu amul fenn la koy jox guub boo xamante ni boo koy lekk dangay ngay tàkkamtiku kii mooy Adja épice fépp la mënee foowe bul e maa ngi dressé suñu code de boeuf à la crème coco bi mhm. accompagnement pomme pomme noisette mhm. donc euh, ñu commencé dressé d'accord Adja ñu fas yéene jaare nag ci yekk bi saa su ne dañuy sàlloo di ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Gaam Adja moom moo ñuy jàppale ci suñu biir waañ ndax ñu mën a yàq lu neex te saf alors chef. ah lii appétissant na de neex na de. léegi nag damaa bëgg nga fàttali jéeg ji nga xamante ni ñoo nekk seen biir kër bëgg a exactement plat bi yan ingrédients yi nga ci def ak lan moo koy jox goût te di ko safal. ok ingrédients bi gis nga ko mooy. Euh, mhm. yaa gis sauce à la crème coco bi fromage roquefort la. ak persil ak ail ak oignon. d'accord moom ngay def. léegi mhm. nii léegi euh, pomme sautée pomme euh, noisette baa ngi nii. Mhm. da nga ñëw rek daal di def ko ci sa huile. d'accord mu jox la couleur bi. léegi euh, sauce baa ngi nii. léegi lan moo ko jox go lan moo ko safar. waaw li ko safal nag Adja ci la bokk ah. <laughs> Adja kay moom moom lépp la. waaw ci la mooy lépp. d'accord donc yaa ngi utiliser woon Adja épice bi. Mhm. ci recette bi nga xamante ni moom lañ leen présenté tey ma mosal leen. nee nañ ma mosal leen. Adja safal bi gën. li leen leen indiloon tey ci ndogu li ak patisen ànd ceeg li nga xamante ni moom mooy gaamu Adja tey nag li ñu leen toogaloon mooy côte de bœuf à la crème coco ñi ngi koy toogee yomb na boo amee sa côte de bœuf bu baax dañ koy daal di mariner ak li nga xamante ni moom mooy Adja épice pour mu jox la goût ak safal bi nga xamante ni moom ngeen ci nam di leen jox rendez-vous demain incha ci yeneen recette ci yeneen i fem ak Adja safal bi gën.